ñun fii dañ fi ñëwoon tey pour euh, euh, jox maanaam euh, éleveurs yi maanaam sàmmkat yi ñu jox leen ñaari fukki tonu repas bu xam ni conseil municipal Monlan moo dogal pour jënd leen ko ndax fu mu nekk nii jur gi dafa commencé di sonn ci wàllu lekk parce que daaw yàlla def na taw bi demewul noonu moo tax fu mu nekk nii ñax amul ci àll ba maanaam moo tax ñu jël dogal pour jàppale donc éleveurs yi pour que nag yi bañ a sonn fii ak nawet am nañu yaakaar ni euh, bii bu jeexee fii ak juróom fukki fan ak juróom dinañ indaat encore yeneen ñaari fukki tonnes bu jeexee encore même fin du mois bi de 30 juin ñu indaat encore yeneen ñaari fukki ton pour que euh, vraiment jur gi surtout wàllu nag yi parce que nag yi ñoo gën a sonn ñu bañ a sonn fii ak euh, nawet donc loolu vraiment moo nekkoon lu ñu fi tax a tey ñu am yaakaar ni tamit éleveurs yi dinañ ko. yor dinañ ko en tout cas saytu saytu bu bii gën donc loolu vraiment la ñuy ñaan encore une fois ñu ngi gërëm bu baax a baax ministère élevage bu xam ni mu ngi gunge aussi éleveurs yi parce que quand même chaque année dañuy def ay subvention pour éleveurs yi ñun dañuy ñëw rek doole ci suñu suñu bos suñu bos mais élevage chaque année naka jekk ministère élevage waxtu yi bu amee ñoom dañuy subvention dañuy donc indi ay repas pour que jur gi bañ a sonn ñun dañuy ñëw rek par jàppale ministère bi ci liggéey bi loolu moo tax ñu daje fi tey. Birame Sow laa tudd may président euh, vice président euh, euh, président éleveur fii ci Morola. Uh-huh. ci commune moro Morola. Uh-huh. waaw te nag dana am mbégte kontaan ndax suñu maire. suñu suñu suñu sunu maire dana jàppale càmm gi càmm gi li fi mu nekk nii ren uh-huh. ren ren ren ji dafa toogul taw bi amu fi solo. ndax euh, euh, presque tooy euh, tooy fi sax au mois jur gi léegi ba loolu bi joyte rek léegi ñax mi nekkul yëpp dafa dafa dafa duus mu dem nay amatuñu dara kana ndimbali yàlla rek waaw ma ànd ak benn xarit mooy Mbaye Thiam man xam ne ma topp ci man mooy mooy mooy mooy sama vice président ah ñu ñëw ci maire ñu ne maire kat dana am njàkkeeg jaaxle ndax jur gi fi mu nekk nii gis naa ne yaa ngi jàppale ñëpp ñëpp ñëpp ngay jàppale ba tes éleveurs yi léegi ñun bugg léegi ni ñun tam nga jàppale nu euh, jur gi ñun tam ñu ñu ñu gis suñu bopp mu ne ah ñu ne waaw mu ne kon nag soobee yàlla dinaa leen jàppale léegi nag wax dëgg yàlla ah jàppale nañu ndax jëndal nañu weer tanu repas saako bu ci nekk mu ngi jar sept mille ci ci usine ba su ñëwee mu ngi jar fii huit mille ba léegi ñu may nu léegi mille cinq cent yi mu ne ngeen jënd ak saako cinq mille cinq cent wax dëgg yàlla ndimal mënul paase foofu te nee nañu su jeexee fee quinze jours din indiwaat e, weer tonne su bu jeexee boobu si jeexitaan vers le trente din indiwaat weer tonne wax dëgg yàlla din koy ñaanal yàlla rek yàlla may ko yokku ak yokkute fi mu fi mu jëmal commune bi yàlla na yàlla jàppale bi mu àggal ko foofu ci jàmm wax dëgg yàlla ñun am nañu mbégte ci kontaan ci moom moom bàyyiwul kenn du du éleveur rek lay defar ndax ba mu commencé nekk fi boobu boobu commune rurale premier mandat jëndal nañu fi repas cinq mille cinq cent boobu cinq mille cinq cent lay jar mu ne léegi indi naa leen repas Euh, euh, dix tonnes repas waaye nag euh, mu ngi jar cinq mille cinq cent waaye defal na defal naa leen ku nekk na na fay dix mille cinq cent xam nga ndimbal paas kon nu commencé woo ko tey kon ne wax dëgg yàlla moom monsieur le maire gàcce ngaalaama dimbali nga ñëpp ni nga dimbalee ñëpp nag na yàlla dimbalee noonu yàlla gii gisul mu lafal la cat dafa la seytaan fi nga bëgg àgg yàlla yàlla na fa yàlla àggale ci jàmm mm-hmm. euh, éleveur bu fi ñëw tey kontaan nga ku nekk ci commune bi ngay éleveur tey am nga kontaan am mbégte wax dëgg yàlla jur gi da doon dee jur gi da doon da doon da doon dee euh, amuñu dara lu ñu lekk euh, nit yi nit yi itam nuratuñu dara ñu ngi doppa yor saret ñu yor saret ñu ngi yor saret di dow guddi bëccëg ñi amul saret ñu ngi yéen seen bopp ñeneen ñi am xaalis ñu ngi looyee ay oto di wuti ñax di def leen waaye alhamdulilah rabbil alamin jàppal nañu ci loolu yëpp sant nañu yàlla sant nañu ko man maa ngi tudd Ndari Diop chef service départemental élevage bu Tivaouane donc dañoo ñëwoon tey ci invitation monsieur le maire euh, ci cérémonie bi nga xam ne bi dañ cee woon pour réception vingt tonnes aliments boo xam ne bi moom ak commune ak ak ak sa municipalité ñoo ko may éleveurs yi donc mu nekk euh, geste bu am solo parce que alimentation bokk na ci contrainte bi maanaam jafe-jafe yu gën ëpp doole ci élevage parce que alimentation parce que jur gi bu lekkul euh, feebar yi dañ koy yàpp ensuite production yi ngay séntu ci moom doo ko mën a am donc kon boo gisee maire boo xamante ni bii ñu jàppale ci loolu vraiment duñ def lu remercier ko et puis dafa ñëw ci waxtu waxee ni bi waxtoom la parce que société nawet passé taw bi demewul noonu donc ce qui fait ñax mi ci àll bi bariwul donc kon moom bu xamee loolu wax dëgg yàlla may leen ko et li ci ëpp ëpp solo mooy système de pérennisation maanaam euh, système bi ñu defar quoi pour que li mu joxe mu bañ a naax saa yi donc benn compte nañ ko tijji euh, lépp loo xamante ni bii et puis aliment bi da ko jënd pare 7000 pare subventionné ko donc et puis 5000 francs moo duggaat ci kees gi. donc pratiquement loolu le ministère bi def parce que le ministère de l'élevage euh, aliment bi mu am bi bi en fait compte yu mu tijji à travers donc les comptes CNCA euh, système de pérénation boobu la ñuy def d'ailleurs moo tax sax fan yi euh, ministère bi génnal benn note pour subventionner aliment bi donc vraiment ñu def lu ñu ko remercier également di demander di ñaax éleveurs yi ni nag lu mel nii bu buñ la ko defalee te defaluñ ko say morom war nga am taxawaay boo xamante ne bii euh, dana wóote ak taxawaay ñi nga xam ne bi amuñu ko donc vraiment ñu ngi koy remercier di xamal ne également que depuis man ba fa nekk ba léegi euh, à chaque fois Euh, lu muy naat lu mu lu muy lu muy lu mu envisage ci affaire élevage dana ma woo ñu waxtaan ci en tout cas il nous implique pleinement donc moo tax ñu ngi koy remercier di ko sant bu baax ñëpp di remercier le maire donc ci initiative bi mu def nii parce que lii mu geste bii mu def nii dinañu dimbali ñun en tant que protecteur de de l'environnement donc ñu dimbali ci li nga xamante ne nii. conflit yi dina am entre éleveur ak agriculteur mais surtout que euh, garab yi nga xam ne dañ koy dagg pour vraiment euh, ut lu ñu xonte jur bi te fii nii ku xam Morolan xam ne Morolan euh, dafa nekk zone boo xam ne dafa bëri ay guy donc su ko defee ñoom nag guy yooyu nga xamante ne nii dafa nekk espèce boo xam ne espèce protégée la moom la ñuy faral di dagg te bis yëpp suñ koy dagg ci toolu béykat yi lay nekk du ñu am ndigalu OFR du ñu am ndigalu kii ñu comme ça ñu dagg ko parce que euh, autorisé wuñu guy yi donc guy garabu guy yi ñu koy dagg pour di jox euh, jur bi donc loolu c'est formellement interdit d'ailleurs sax boo xoolee ak le nouveau code sanction yi dafa gën a sévère dafa gën a sévère ci côté googu noonu donc lii donc ñu ngi ciy remercier maire bu baax parce que xam nañu ne xëy na dina wàññi action yooyu nga xamante ne nii donc éleveurs yi ñu ngi ko doon def pour dem uti lu ñu xontee seen jur gi. Aujourd'hui nous sommes rassemblés ici à Morolan dans la coopérative agricole de Morolan pour euh, une cérémonie pour une cérémonie de remise de d'aliments de bétail. que le conseil municipal a bien accordé aux éleveurs de Morolan. Nous avons constaté qu'il y a un, eu un déficit pluviométrique euh, l'hivernage passé et actuellement le pâturage est devenu rare. C'est pourquoi en concertation avec les éleveurs, le bureau des éleveurs particulièrement, nous avons décidé d'acquérir 20 tonnes d'aliments de bétail donc pour renforcer l'alimentation des, des bovins surtout, mais et de, de, de l'autre bétail aussi, mais surtout des bovins. Donc nous avons aussi décidé, d'ici quinze jours, de renouveler aussi ce stock de 20 tonnes, parce qu'ils euh, vont euh, vendre sa avec un coût de 5500 francs le sac, donc un coût subventionné. Et je pense les 5000 francs euh, qui vont être assemblés et déposés dans un compte, d'ici 15 jours, on va euh, augmenter ce montant et aller acheter encore 20 autres tonnes pour les éleveurs. Nous souhaitons en tout cas que les, le bétail ne soit pas de Morolan, ne soit pas fatigués d'ici l'hivernage, parce que nous sommes en période de soudure pour, les, pour le bétail surtout, les, surtout les bovins. les villages de la localité sont concernés Oui, À, à Morlan, nous avons une association des, des éleveurs de Morlan qui concerne tous les éleveurs. Bien vrai, c'est que tous les villages en tout cas sont concernés. C'est vrai qu'il y a certains éleveurs qui n'ont pas adhéré au niveau de l'association. Nous avons tout à l'heure donc fait appel pour que tous adhèrent à l'association. ça va faciliter notre travail pour maintenant et les années à venir. Parce que parler avec une association est plus simple que parler avec tout le monde. C'est pourquoi nous avons donc décidé en tout cas d'accompagner les éleveurs. Pourquoi pas transformer même le système, changer le système d'élevage à Morola. Il faut aller vraiment vers l'intensif parce qu'aujourd'hui, euh, l'espace d'élevage est en train de, de se de réduire avec euh, les projets, avec les, les, carrières. Voilà, donc il faut que les gens s'adaptent à ce, à, à, qui se passe actuellement parce que l'espace se réduit. Donc les gens aujourd'hui doivent vraiment mettre l'accent sur l'intensif. Et je pense que là, on va en concertation avec les éleveurs, avec l'inspecteur bien sûr, qui est notre conseiller qui est notre premier conseil en matière d'élevage. Nous allons mettre en place un système, en tout cas, pour euh, changer vraiment le système d'élevage à Morolan. Nous sommes venus euh, sur invitation de M. le maire pour assister à cette euh, cérémonie de réception de 20, 20 tonnes d'aliments qu'il la euh, octroyé aux éleveurs de la commune de, de Morolan. Donc j'avoue vraiment que c'est un acte très fort et également exemplaire. Parce que depuis euh, que moi je suis à la tête de ce, de département sur de, de, en fait, dans, dans, le domaine de Donc euh, la collaboration avec le monsieur le maire euh, s'accentue davantage. Euh, il fait beaucoup de choses quoi, pour les éleveurs. je peux en citer un exemple. Il n'y a même pas un mois, on a réceptionné un parc à vaccination. donc il a pu, mettre à la disposition donc, les éleveurs. Euh, mais cet axe euh, également, c'est un axe très fort parce qu'il s'agit donc de l'alimentation. Parce que la première contrainte de l'élevage au Sénégal, c'est l'alimentation. Un animal euh, qui n'est pas bien alimenté, euh, quand même, euh, son état de santé est prometteur, mais également les productions animales qu'on attend donc de, de, de, ne, ne, peut pas se produire. Donc, euh, et puis ce qui est beaucoup plus important, c'est le système de, pérennisation. de pérennisation parce que on fond, ah, pardon, un un compte doit être ouvert dans ce sens et que aussi on attend 40 autres tonnes d'aliments pour renforcer donc l'existant. Donc sur ce vraiment nous ne pouvons que le remercier et au nom également du ministère du ministère de l'élevage et des productions animales nous le remercions également nous le félicitons et également on demande aux éleveurs quand même de, faire tout quoi pour que ce qui a ce qui leur a été remis euh, puisse vraiment être utilisé donc convenablement. Oui, à pénurie de soudure, c'est presque partout au Sénégal. Bon, nous sommes confrontés à un problème d'alimentation parce que l'hivernage passé, euh, la, pluvium, la pluviométrie euh, était faible, ce qui fait que donc le pâturage euh, n'est pas au rendez-vous. Donc c'est la raison pour laquelle euh, nous avons un déficit alimentaire. Mais c'est également c'est ce que le ministère euh, de l'élevage et de production animale à C. C'est la raison pour laquelle on vient de recevoir une note de service euh, qui, euh, subventionne l'aliment bétail. Et vous savez que euh, dans tous les départements du Sénégal, un fonds a été ouvert euh, de la CNCA, donc un compte d'aliment bétail, et que les éleveurs ont besoin peuvent aller donc commander donc, de l'aliment. Donc dans cette commune de, de si à, côté de ça, le maire donc vient de leur octroyer tonnes et on également 40 tonnes. Vraiment, on peut le, peut le remercier également, le, le féliciter donc, dans ce qu'il